jóge bàyyee leen ko ñu nekk ci ñoom di teggeeka tag war ko rek lànk na duñ ko wàcc moom kay bu doon làmb la rek ñu ne yóbbu na leen ardo ñi nekk ci guddiku ba sëtagul te ku leen mayul yoxo ñu dee ba jeex tàkk ñoo nekk ci xëru njëkku vox populi yéen la xëru njëkku journal bi ñu fekk fa woppi covid 19 ji afrique bu mayul boppam dinañ ko joxum neexal ne li mu laale ci woppi covid 19 ji kenn laalewu ko ci du samay kàddu yéen la xëru njëkku journal bi journal bi nañu jamono ji may waxe yéen kay afrique laale na ci lu journal bi yemu ca nee na a jaaxal rek mooy bakkan yi rot moom ñoo ngi gën a takkar naa sa saa Sénégal na lu toll ci fukk ak ñaar ci ay néew bu ñu ko booleeg bi fi nekkoon day daal di nekk rek téeméer ak ñeen fukk ak benn ci ay néew Sénégal bu demee ba yëkkati yoxoom di yalwaan bu mu bett kenn ne bi moom bu doon bomb la ñu ne tàkk na ba jeex tàkk du samay kàddu yàlla xaruñu ko libération journal bi nañu wopp ji kay moom bu fi jógeewul africain yi moom dinañ la fañ ndax am nañ lu toll ci 49 dix millions yu africains yoo xam ne ñoom dañoo far lap ci ndóol gi journal bi nañu ma bu ko faat ne Sénégal moom na mu lomp ñi ëpp na ne bu ñu xoolee màgguwaayu koom-koomu réew mi na jugee na ci juróom benn yu toftal juróom ñaar egg ba ci ñeenti point moom kay moom màgguwaayam ba far na taxaw waaye journal bi yamu ca nee na li ma gën a jaaxal mooy wopp ji moom ñi muy tëral ñoo ëpp foofu ñi muy taneen ñi mu jàppoon tañ far ca rëccee kenn fooge wu ko woon ñu jël seeni dossier ne leen ko sabax ne leen war ngeen pëlëñ ñu nekk ci xët wu njëkku laas ne leen xët wu njëkku journal bi journal bi nañu moom kay ci ca yombul waaye ñi moom rëccee nañ ca ñan ñoo ca rëccee xanaa ministre Mbaye Ndiaye ak député bii ñu duppee Yaya Diallo ginnaaw fukki fan ak juróom yi ñu leen quarantaine noon fële ca lali l'hôpital ya far nañ leen joxaat seeni dossier ne leen nag yéen seet ngeen wecc rek ci woppi covid 19 ji ñi demoon ba ci seet wecc te far ci taq ripp ñoo nekk ci xët wu njëkku critique yéen la xët wu njëkku journal journal bi nañu ñoom kay ñoo ci far desoon te far nañ bi des armées ak général de corps aérien di Birame Diop ak benn capitaine ak de l'intendance de militaires yi ñii ñëpp laale nañ ci woppi Covid 19 ji keneen ki ci laale tam xëy di weddee ka laye ka leeral ma ngi ci xëdu njëkku l'observateur yéen xëdu njëkku journal ginnaaw coowal suuf li fi amoon ta doxoon ci diggante ñay yeewoo fële ca ningi leer ak waa ji laax Babacar Ngom ñëw na def ca ay leer Babacar nee na ca dëgg-dëgg suuf si moom dañu ko jël di ko ci xat ma ci kenn laal rek wax la ñu ma demee fële ca am na fa ñaar téeméer ak fukk ak ay boroomi kër yoo xam ne ñu ngi wëddi tambaambal amuñu sax fu ñu bu fekkee fële ca malika am na fa ay boroomi yoo xam ne moom ñii seeni suuf dañu ko nangu ñii ñu toj ko tabaxee ko maam booy jaawo mi jiite jam naa jo mel na ko koy feelu jaawo nee na man de li ma gën a métti rek ci yëf yi mooy ñuy wër di yàqu deru président Macky Sall bi naan suuf si mu joxe woon dina nanguwaat lépp loolee day xaaj ba xaajaat ba dara du ca dëgg waaye jaawo yamu ca ndax ca ndax nee na ñi koy wax nekkuñu fenn fudul ci parti bi dañuy wër rek di yàq der te lii sax nag dafa neexut muñ ñi ko muñ ba seen muñukaay far jeex ñu far sësu ci miir bi gàddu seeni bagage lem seeni kaaka far leen abal ñoo nekk ci xaru njëkku laas laas nañu PDS xar na ñaar ndax Omar Sarr kër yéen a parti bu bees les éco mel na ku koy feelu naan ko militant yi PDS yi kay dañoo far rek sës ne ko Omar Sarr kay bu fekkoon menn moom kese mooy dem sax du metti waaye ñamu buubaalee bari waaye Omar nee na li ko gën a metti rek yi parti bi moom militant yu yàgg yi faaleetuñ ci kenn dañoo daw ba suñu doole jeex li ñu mënoon lépp nag def ngir parti bi ak Abdoulaye Wade moo taxit nag ñu far carrière parti tuddee alliance suqali soppiw doxin ñiy soppiw doxin te nana dugal élèves yi ci guute ñoo nekk ci xëdu ñëkku vox populi yële xëdu ñëkku journal yi ginnaaw ñetti weer yi ñu toogoon di ko vacances vacances su forcé président Macky Sall jëlaat na dogal li ko dalee benn fanu septembre bii ñu ma ne bépp élève dina delluwaat ca classe waaye li gën a doy waar mooy année ren bii dina jeex ko dalee benn fanu novembre ñu fas yéene tijjiwaat dëgmal ba ëllëg ak